Ababacar Sall ak Karim Meïssa ñoom nag ñoo ngi jëm ci bokk ci élection présidentielle 2024 yéen i kayi gi de la sa nee na yàggatul dara machine à laver bi nga xam ne mooy sang Karim Wade ba mu seet wee ci ak Khalifa Ababacar Sall lancé nañu ko journal bi nee député yi convoqué nañ leen assemblée nationale altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmale ci projet de loi yéen i gi nee li nga xam ne mooy kër dañu koy effacer ci mi maanaam kër dañu koy France altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal ci ni mu gën a jàmpe yi ni kay gi du l'Observateur nee li nga xam ne moo jëm ci wàllum député yi ak procédure d'urgence bi maanaam bu ñu ko voté président bu fi nekk léegi dafay am sañ-sañ maanaam supprimer assemblée nationale maanaam dissoudre assemblée nationale saa su ko neexee maanaam bu ñu ko voté ba pare président bu mu boo toogee ci ba réew mi maanaam mën ngaa jóg rek daal di tas assemblée nationale te bu njëkk daa nga toog lu toll ci ñaari at yéen kay gi nee na léegi mën nañu ko dissoudre maanaam mën nañu ko tas yéen kay gi di Walf Fadjri bàyyi mbir moom wax ci lu jëm ci wàllum Ousmane Sonko mi nga xam ne tey jii la ay farandoom waxoon ne dañu koy daal di sampo ngir nag mu nekk seen candidat ci élection présidentielle 2024 ginnaaw bi leen ko gouverneur ak préfet tere ñoom nag daan nañu koy teg ci suufa Ousmane Sonko démb wax na waaye nag tey jii ab concert de casserole la woote bu 20h30 jotee nee na la ko waral mooy naqarlu bu baax a baax taxawaayu Macky Sall ci réew mi ni nga xam ne moom la koy bund xataale ak ni mi asarnaw ci kawam ak ak njabootam Ousmane Sonko na nag yàggutul dara maanaam ci 46 départements yi danañu fa amal ay manifestation te lu jëm ci wàllum résistance violence bi maanaam danañu ko wëyal ba sa ga yéene kaay gi du l'observateur xëy nag ne Ousmane Sonko mbaa jaaxulu le ndax Ousmane Sonko mane ci bii boor mane ci bee boor ndax Ousmane Sonko su ko neexee mu ñëw tàngal mbir ba mu tàng jër bu ko neexee mu ñëw di woote jàmm journal bi du l'observateur nee loole la gis ci Ousmane Sonko niki démb danoon woote message sub jàmm yéene kaay gi de la Sonko nee na régime bi dañoo bëgg a tas tudd ci liste électorale yi journal bi de Le Quotidien yor yor nee na Ousmane Sonko tey ji si samedi ji concert de casserole la woote bu vingt heures trente jotee ba takk sagar xonq ak li nga xam ne moo jëm ci bracelet de la liberté yéen kay gi de la Tribune Ousmane Sonko nee doomam dafa la ji ci bag yi nga xam ne doomam ji doon na ko ci année scolaire bi moom Ousmane Sonko nee na Amadou Sall mi nga xam ne mooy doomu ma ngi dox ay soxlaam ba yi te dara fekk ko ca yéen kaay gi Sud Quotidien nee na avocat bu Ousmane Sonko bi di Juan Branco parquet bu Ndakaaru maanaam procureur nay lancé li xam ne mooy am mandat d'arrêt fu ñu ko fekk daal koy tënk andil ko ba tey ci bi avocat yi Sonko yi ñoom nag jàpp nañu ne loolee diversion la maanaam ay caaxaan la Ousmane Sonko journal bi di Source A nee na Ousmane Sonko ci bras de fer la commencé daal di nag jeexale ci li xam ne mooy concert de casserole la la source a ñoo xëy di ko xibaara yéen kay gii di Vox Populi nee na Ousmane Sonko ma ngi yedd Macky Sall ak général Moussa ak Bokar Yàgg Ousmane Sonko nee na leen xoolaat leen seen bopp ndax 2024 léegi tey mu yegsi te leneen lu bees mooy am ci réew mi Ousmane Sonko ne bu boobaa danañu taxawal ab tribunal spécial boo xam ne danañu ci àtte képp koo xam ne def nga ay crime ndax jël ay bal réel di ko dóor ci askan wi loole moo tegiwul fenn Ousmane Sonko ne manifestation bi nga xam ne moom lañ fi mujj def te mu nekk manifestation boo xam ne bu tar la manifestation bu am solo la ndax nee na loole moo tax Macky Sall deltu ginnaaw ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi nee na tamit ay nervi moom dootoo leen fi ay nervi yéen i kaay gii de l'info Abdoulaye Wilane ci élection présidentielle 2024 li mooy parti am ab candidat Ousmane Sonko nee na bi Benno Bokk Yaakaar di ci 2024 15 pour sax du ko am yéen i gi nee na Abdoulaye Daouda ñu bari ñoo ngi ko doon tudd ngir nag Bokk Yaakaar ci waaye sondage

nee na a Sall tukki na ba pare yóbbaale bi nga xam ne gars yi jamono ji ñoo ngi koy xaar ndax kan lay jiital waaye na gars yi bay boo ñu ndax bu Macky Sall dikkee ci Sénégal ci lay wax kan lay jiital ci 2024 yéen i kaay gi di enquête xëy sampab laaj ndax nee na Mohamed Boun Abdallah ndax du mooy nekk surprise bi loolee ab laaj la boo xam ne waa journal enquête ñoo xëy di ko laaj ndax nee na ñu économiste la spécialiste la des finances internationales ak lu jëm de développement yàgg 2007 Mohamed Boun Abdallah Dionne moo nekkoon chef de cabinet am bi Macky Sall nekk assemblée nationale Mohamed Boun Abdallah Dionne moo nekkoon chef de cabinet am moo nekkoon ci wetam yéen i kaay gi di sunu lamb xëy duñu xibaar naan ñu promoteur bi di Baye Ndiaye ñëw na ak doole ndax bëri na combat yoo xam ne taxawal na ko taxawal na combat Coly Faye ak Thiatou Daouda taxawal na tamit combat Eumeu Sène ak Tapha Tine Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo don doon may seen revue